laa ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah cey yàlla rek mooy kenn maa xam ni ayda ayda boo koy woo ba ba léegi bu wooree ci néeg bi lay tugg nu ñuxur ni ñàpp rek toog na na mu toog rek baax na rek ayda ayda Aida. naan nijaay. bismillah. nii ma wax la. Aida dinaa la xamal len ñaar ba ñett. maanaam fan yi démb la xaw ma sax. dégg naa dem naa fekk ñaar ñee ñu toog. rajax la ak sa mag rakk ju jigéen jooju. Mhm. ñu nekk ña ngi ci aw six mille nangam sangam. lillahi wa rasuli ak mbokk six mille daa ci kër gi xaalis boobu am ci kër gi fan la ne ak lan moo fi dugal xaalis bi ca man teguma ko ca man yëguma ko da nga leen dégg ñoom ñaar ñuy naa ñuy wax waxam six mille te nag ma la leen ñoom ñaar ñi ngi ndoxaanante ndoxaanante gu métti bi ma duggee ci kër gi bur woon ak seeru ramadan nii la ko def ñu ko dara jël ay loxoom teg ko ci sii bi mbii ci rusom gi bu yàggee nag mu violé ko ko na koor gii rajax violé na sarak ji wax naa la ko man barki dee man yaay fi laa nekk moom moo ma lebal 6000 francs ma war a dem marché fekk yow caa jox nañ ko avance am nijaay ma lay laaj ba sonn nangu woo ma faale nangu woo ma tontu léegi soxna bu ma joxee 6000 si laa demee marché xaw ma marché la war dee xaw ma si biir kër gi mais sama xel daal lu ma jox taxaw naa fii di musóor xam naa ne. 6000 yow yow nag yow nag yow nag xam naa ni man dag maa bëgg a booleeg àdduna bi. yow caat buñ ko joxee avance ak buñ ko joxul avance lu soon laa dem ci kii nu mu tuddati ah Serigne Kunko Ndang Kunko Ndang muy sëriñ boobu nga xam ne am nen lay watu def ñaari béjjën moom laa koy wutal foofu ñetti ndomba ñaf ko ci ndiggam li fii ginnaaw suba nga gis ko moo mooy takke ndomba caat dafa war a daan ñaari ndomba laa ko wutal ñaf ko ci ndiggam lii ngir mu daan moom caat meeg daane da nga naan ay gàllaajam yaa wax ma leneen waaye dama naan ay lan ay gàllaajam nga naan gàllaajam gàllaaj bi rax so saw bi fii la soow la de soow. soow soow. moo tax it yaa ngi nax sa bopp na nga jàpp ni daal soow la kan jàppal ni soow la Thiat bu bu bëriwul combat bi jàppal ni yëpp waa. soow dëgg la fay. soow kon may ma jàll man. amoo ah nag maa ngi doog a comprendre ni. li dof nday doon wax naan Doudou Cissé nga jël akaari akaram ndeyam ku la nax man sama saw mi soow mi mi ngi commencé war dëkk bi waaye man ren yàlla kese laa indi ci kër gi wasalaam. حي حياتنا ويفرسنا